الله أكبر الله على الصلاة الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi sunu xutba mooy ramadan madrasatul axlaq weeru koor école la pour defar jikko yi sunu borom subhanahu wa taala mooy buur bi bëgg ci ñun ñu defaru ñu defar sunuy jikko moo bëgg ci ñun ñu baax moo tax mu indil ñu benn école boo xam ne dinañ ci mën a def formation nangami fan pour ñu mën a baax jabir ibnu abdullah radiallahu anhuma nee na isa sumta falyasum sam'uk wa basaruk wa lisanak an ilkadibi walmaharim wa da azal jaari walyakun alayka waqaarun wa sakina yawma sawmik wala tajal yawma sawmik wa yawma fitrik sawa jaabir nee na yow mbokk julit bi soo wooree isa sumta mu ne fal ya sum samuk fexeel ba say nopp na woor fexeel ba say bët na woor fexeel ba sa làmmiñ na woor ci fen ci lu araam mu ne lor dëkkandoo na nga wegu dal mu ne bis boo wooree warul nuroog bis boo woorul bis boo xëy nekk ci koor warul nuroog bés yi nga xam ne wooroo boroom xam-xam yi nee na asiyaam siyaamul jawaarix koor du bàyyi lekk rek du bàyyi naan waaye fexe ba cër yi woor la sawmul jawaarix waaye mu ne wa wasilatu li tahsini al axlaq koor daa ñëw pour dimbali ñu pour jàppale ñu pour suñuy jikko mën a baax waaye gis ngeen tey li tax jikko yu munta baax mooy koor gi moo baaxul ndax ñun ñëpp ñu ëpp ci ñun sawmul jamaa la ñuy woor lan mooy sawmul jamaa mooy ñëpp woor nañ woor na nit ñi bàyyi nañ lekk bàyyi naa lekk nit ñi bàyyi nañ naan bàyyi naa naan loolu mooy sawmul jamaa loolu ñëpp a ngi koy def waaye ndeke loolu lan mooy ñuy wan lool kese du woor mooy yonent bi moo ko leeral nee na koor du lekk rek du bàyyi naan loola tax yonent sallallahu alayhi wa alihi mu ne man lam yada qawla zuur wal amala bi fa laysa lillahi haaja fi an yada taama wa sharaba yonent bi nee na ku bàyyiwul waxi caaxaan ak di ko jëfe woor ba pare nekk ci caaxaan nekk ci théâtre yi di saboter islam gis ngeen bu ñu wooree ba ngoon bay dog télévision yëpp yu ëpp ci nag dëkk bi ngay gis ay artistes ay théâtre kat ñuy saboter diine waa juy julli du ko yeggali ku woor du ko yeggali koor kooru gàlle kenn xamul gaa yi lu ñuy nuru di saboté diine su ko defee genn wàllu population bi yëpp toog di seetaan li ci gën a dangereux mooy yow jullit bi nga toog di seetaan loolu yaag say doom di reetaan kuy saboté julli di saboté koor saboté imam saboté alquran ngay seetaan sa doom di seetaan loolu ngeen di ree yéen ñaar mooy xale bi ëllëg mën naa def loolu mën naa woor ba digg bëccëg mu dog lu tax parce que démb gisoon nga ko gisoon na ko ci télé bi yow nga toog di seetaan loolu waxoo ci dara ñu ñëpp genn wàll gi yëpp ci loolu lañ nekk mooy dañuy bàyyi lekk rek bàyyi naan moo tax jikko yi du defaru loolu mooy sawmul jamaa woorandoo ñu ñëpp nanu woorandoo dogandoo boo demee ca naafile bi tamit mu nekk taxawandoo sëlmalandoo amul benn résultat bu jaamu yàlla yi tey di def te la toxoon ñuy wor mooy laallakum tattaquun ndax ngeen mën cee defar seen jikko ngeen ragal yàlla mu ne laysa siyaam min al akli wa surb wa innama siyaam min al wa rafas koor du bàyyi lekk rek ak naan waaye mooy lan mooy bàyyi mbóosóor bàyyi caaxaan même bu la ci nit bëggee yóbbu wala yonent bi lu mu wax mu ne soo wooree sax nit bëgg laa jële ci sa koor indi la ci caaxaan yi lan la wax na ko wax inni saa'im man dama woor baat boobu su ko nopp déggee ngay wax ak kenn muy tontu ba ci àgg mu ne la inni im saa yoo déggee baat boobu rek war na am lu mu sopp ci yow baatu dama woor war na am lu mu defar ci jullit baatu dama woor war na soppi sa comportement war naa soppi sa melokaan war naa soppi sa jikko waaye war naa soppi sa xalaat baat boobu di baatu dama woor fa qaala inni saa'im alqur'aan a ngi nii di ñu wax samaratu siyaam yàlla moo ko wax ci quraan weeru koor garab la ki woor ba ngoon toog ci keppaaru garab gi su wooree ba dog jot war nañ ko laaj waaw yow ci garabu keppaaru koor nga yendu mu ne waaw ñu ne ko loo fa jëlee noo gisee keppaar gi war naa mën a tontu weeru yàlla su la ko yàlla joxee bés bu nekk nga xëy di woor suba ba ngoon ba koor gi jeex suñ la laajee yow koor gi loo ci jëlee war ngaa joxe résultat war ngaa tontu mais maal saf nit ñi dañuy wor ba ngoon duñ ci jëlee dara balaa ngay xam ne duñ ci jëlee dara mooy dog jot nga génn ci mbedd yi fekk ruq bu nekk angle bu nekk gaa yi taxaw cigarette bi di jolli pon bi naaw musique bi takarnaase wala nga gis gaa yi takk daal yi jubal géej am na terrain bu ma romb fi barki démb fii bu ngeen di ñëw terrain boobu ma romb jàkka yi ma romb ñuy naa fi la yëpp terrain boobu moo leen ëpp nit terrain baa ngi fii ci CFA fii foo ma dëkk nag wetu géej gi moom kenn du wax foofu dafa mel ne dañu ne dafa am benn milliardaire bu fi taxaw ku fi ñëw da ngay envi enveloppe 5 millions nii lañ gaa yi def vuf vuf jëm géej kon loolu moo lay wan ne koor gi nit ñi di woor amul benn résultat amul benn njëriñ lu tax ndax sawmul jamaa la ñuy def wooruñu koor goo xam ne dafay defar jikko koor dafa am samar dafa am meññeef sunu borom subhanahu wa taala moo ñu wax meññeef gi mooy lan ya ayuha alladina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquun mbooleem ibaada mbooleem yàlla jaamu bu mu ñu sant nañ ko def résultat bi mooy ragal yàlla lañ ciy jëlee résultat bi bu dee julli résultat bi muy def su nangoo su dëgg gi su julli gi dëggoo mooy dootoo def bakkaar inna salata tanha anil fahsha wal munkar dafa am benn jigéen doomu buur la dafa am alal ndax papaam buur la baayam may ko alal bu bari mu ne alal ji dama ci tabax jàkk mu jënd pak terrain ñu commencé di ko tabaxal jàkka ji mu ne foog ma dem ci jàkka ji julli fa ñaari rakk waaye loolu balaa muy mën a nekk bis bu ma fay yegg si liggéeykat yëpp nag leen génn ci biti ndax bëgguma jaxasoo ak ay góor nañ génn ñépp bugguma benn góor gis sama yaram bis bu muy ñëw di ta di julli si ñaari ràkk yooyu ngir sant yàlla ci biir jàkka ji ñu génn liggéeykat yi bañ jeex ci biti mu dugg ñu lal mu lal sijaada bi day muur kanam gi mu daal di dindi muuraay bi mu defoon ci kanam gi ndekke ci biir jàkka ji am na benn waay boo xam ne génnul wàcc génnewuñ ko mi ngi ci sooroor bi ci kaw bi ñuy génne nit ñi dañ koo fàtte waa ji daal xool kanamu ndaw si gis ko muy julli rek ndaw si daal dugg ci biir xool bi mu bëgg ko mu yendoo mbëggeel googu ci kaw minbar bi ba mu wàcc mu yóbbu ko seen kër xëyewaat ko wàccawaat ko bëgg bi mu bëgg ndaw si jàpp ko mu commencé feebar yaayam xool ko ne ko lan la mu ne ko man damaa bëgg doomu buur bi waaw luy sabab bi mu daal koy nettali mu ne dama ko gis rek ma bëgg ko yaay ji ne ko xaaral ma dem xooli balaa ngay dee mu dem yàlla dimbali ko mu am accès ci ndaw si mu ne ko man de dafa aajo ma fi indi luy sa aajo mu ne ko sama doom moo la bëgg te nee na bu la takkul day dee mu ne fan la ma gisee fan la ma xamee mu daal di koy nettali ne ko keroog ba nga ñëwee ci jàkka ji di julli ñaari rakka yi bi nga dindee fulaar bi sa kanam rek moom mu ngi woon ci kaw dañoo génne jàkka ji ñëpp des moom dañ koo fàtte mu ne foofu la la xoolee ndaw si ne ko d'accord naa yaay ji kontaan daw waaye balaa yaay ji dem ndaw si bi mu ne ko kontaan naa dafa ne ko dafa am charte su ko sa doom nangoo rek ñu daal di takk sëy bi mu ne ko charte bi lan la loo koy sartal mu ne ko am na benn jàkk bu nekk palaasu sàngam mu ne waaw mu ne day dem julli fa quarante 40 jours 40 jours yi su matee mu ñëw ñu def mariage bi yaay ji daw daw boo xam ne déggewu ko jàmm ñëw wax ko xale bi xale bi kontaan benn kontaan boo xam ne fëkk ay bagaasam utali jàkka ja mu def fa cinq jours quarante la mbëggeel gi commencé wàññeeku mu def fa dix jours bëggatul ndaw si yàlla la bëgg léegi dix jours la fa def mbëggeelu ndaw si dañ mbëggeelu yàlla daal di dugg mu bëgg yàlla parce que julli gee nangu julli gee nangu mu def fa quinze jours mu fàtte ndaw si mu def fa trente jours gisatul kenn ku yàlla mu ñibbisi mel ne dara yóbbu ko woon yaay ji di ko déglu gis ko muy xëy di wàcc di ñëw yaay ji jékki-jékki ne ko yow hey yow lu la taxoon a dem jàkk ja mu ne ko fii ma toll nii gisatuma ci kaw suuf ku dul yàlla maa ko bëggoon bëggatuma ko maa julli gi moo nangu jaamu yàlla bi bu nangoo dootoo gis lenn lu dul yàlla waaye jaamu yàlla bi bu dee danga koy def rek ngir naa ko def mu jeex même loolu ngay dégg léegi ci dëkk bi julli day jot ñu ne nañ gaawaa nañ ko door mu daanu waaw wala nga dégg waa ji ne jéngu naa ko ay koor gi maa ngi jéngu de ñaata fan nga amagum maa ngi am naa nangam jéngu naa ko maa ngi jéngu jaamu yàlla du jéngu jaamu yàlla du dóor mu daanu waaye dafa ñëw pour defar la yow mii doomu aadama julli dafa ñëw pour defar nit koor daa ñëw pour defar nit koor lan la la tere xoolal lu araam lépp ñu ne bul ko def pour nga yar bakkan bi pour nga mën a normal pour nga yaru pour nga nekk jullit waaye su fekkente ne dañuy woor rek kooru jamaa xiif ba ngoon ñu indi la ndogu nga ndogu nga ñëw woor na naafile naa jeex na doo yëg benn jaamu yàlla doo yëg benn cafka ibaada ci sa jaamu yàlla sunu borom subhanahu wa pour mu wax ñu ne ibaada yépp bu ñu yàlla sant résultat bi mooy lan ñu jële ci ragal yàlla mu ne yaa ayuha nnaas ibudu rabbakum alladi xalaqakum walladina min qablikum laallakum tattaqun bu dee aj màkk ragal yàlla nga ci war a jële waaye xoolal tey jaamu yàlla yi bu yàlla indil dëkk bi rek nit ñi am na luñ ciy benn aada ci suba damay déglu rajo bi jigéen ñi nga xam ne dañ leen di forcer ndogu jox seeni njëkke seeni goro ndogu fal force boo joxewul dee wala ay or jasineer nangam nangam maanaam ñun ci dëkk bi dañoo lànk yàlla jaamu yàlla bum ñu sant rek foog ñu dugal ci bidaa ak boo demee ci ngénte noonu la saa yi hande e inde hay goto innata ha gasa so wona maɓe e eh, ɗum ɗo ko teddugal moɗon to teddugal allah woni aada rek aada ko ɗum ɗo min tawno mawɓe ɓe ina waɗa ko tawano nelaɗon ina waɗa ko noon ko ɗum foti gollede walla ko foti mawɓe ɓe gollanno ko nelaɗo gollanno gollete walla ko mawɓe ɓe gollanno ko gollete holko foti gollede holmo allah neli mawɓe ɓe walla nelaɗo allah wi ko alquran muhammadun rasulullah suñu problème mooy mboolem jaamu yàlla bu ñuy yàlla sant foog ñu def ci aada boo ñëwee ci sëy ay aada da ciy dugg nga ñëw ci ngénte aada day dugg mboolem mboolem julli dañ ci dugal ay aada nga ñëw ci koor dañuy dugal aada nga ñëw tabaski dañuy dugal aada lu nekk rek foog aada te li gën a dangereux mooy aada yi day dem ba folli diine ji daal di kenn du ko mën a dindi mbokk julit yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ci boo xam ne saxiix mu ne iza kaana yowmu sawmi ahadikum bu kenn ci yéen xëye woor fala yarfas wala yajhal fa in shaabahu ahad aw shaatama falyaqul inni saim kenn ci yéen bu xëyee woor ngalawaay bu mu caaxaan bu mu def jëfi ceddo bul nekk caaxaan bul caaxaan sa koor bul def jëfi ku réer bul def jëfi ceddo même su kenn ñëwee ba laa dugal ci loolu yow taxawal nga garde sa koor ne ko inni saim ida kabaha sawmu lmaasi naala al abdu manzilata raqi fi l ubudiya nit bu fexee ba kooram mu téye ci mooy yàlla mu génn ci bànneexu bakkanam day am ci yàlla daraja bu mag a mag a mag lu tax ndax day xam moom li ko tax a woor lan la kooru diine la waaye nekkul kooru aada ixwat al iman wal xaqiqatu ann annaas inqasamu fi siyaami ila iddati aqsam nit ñi seen koor ñetti xaaj lañ fa minhum man yakunu siyaamu al imsaak anil akli wassurbi faqat am na benn kuréel goo xam ne ci biir ñu woor ñoom fan lañ bokk mooy ñi bàyyi lekk bàyyi naan lekkuma naanuma ñooñu foofu lañu bokk ñoo ñooy première catégorie yéen da ngeen woor waaw lu tax lekk ñu naanuñu ñooñu ñu ngi noonu taxaw am na ñeneen ñoo xam ne dañoo woor waaye murtakibun lil fawahish mu talliq basara lima harrama allahu min annazri ila nisa gayrul muharramat maharim dañoo wóor de ñee waaye seen bët yi dañ koo boyal bët yaa ngay xool lépp lu araam naka la nit di wooree dem géej di jaxasoog ay xale yu jigéen walla ay xale yu góor ba ngoon jot naka la di woore toog di seetaan ay film porno ba ngoon jot am na ñoo xam ne dañuy woor de dañuy tëju ci biir néegi di seetaan film porno te dañoo woor ba ngoon jot walla ñuy seetaan film boo xam ne balaa muy jeex porno nekk ci ñu toog di seetaan ngeen ne dangeen ngeen a woor ñooñu mooy deuxième kuréel bi troisième kuréel nee na ñoom dañoo woor waaye luy seen mbir dañoo boyal seeni nopp da ngay gis sax fii ci dëkk bi ku woor dugal écouteurs yi ci nopp yi ma ngay déglu musique di yëngal bopp bi waaw woor di déglu musique moo tax mu ne nit ñi dañoo xaaju ci koor ay groupe yi wa baaduhum atlaqa famu am na ci ñoo xam ne seen gémmiñ ñi lañ boyal dañoo woor de lekkuñu naanuñu dégluwuñu musique seetaanuñu film jaxasoowuñu ak jigéen waaye seen gémmiñ ñi rek la ubbi rek nekk ci deru nit ñi di lekk rekk ñoom diw diw parki démb tey ba ma ko rekk di lekk rekk te nee nañ dañoo woor nekk ci nit ñi guddi ak bëccëg luy dëgg ñu wax lu dul dëgg ñu wax te nee na ñoom dañoo woor wa sadaqa as-saadiqu al-masduuq sallallahu alayhi wa qaal rubba saa'imin hazzuhu min siyaamihi al-juu' wal ki yàlla yónni won ci ñun moo wax dëgg nee na bëri na ku woor xam ngeen lan la jële ci koor gi nit ñi ne ah yonent bi ne xiif ak mar akbar xool leen xiif ak mar ni mu nga woor ba ngoon au lieu nga am tiyaaba yàlla fay la waaye amoo loo ci jële lu dul xiif ak mar lu tax parce que wooroo koor gi la yàlla sant wooroo koor goo xam ne sayyiduna muhammad alayhi salaatu wasalaam moo la jàngal naka la ñuy wooree ixwaani fillah fa inna haulaai allazina farratu siyaamahum yuctabaruuna muhrumin fi shahri fi shahri sawm ñii nga xam ne dañoo woor te nii lañ mel ñii day bu yeboo ñu xam ne jàpp nañ leen ñoo xam ne dañ leen a xañ tiyaaba dañoo pert ci weeru koor yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na atadruna manil muflis ndax xam ngeen ko perte atadruna ndax xam ngeen manil muflis xam ngeen ku perte qaalu sahaaba yi ne ko al muflisu fiina man la dirhama wala mata yonent ñun xam nañ ku perte kay ñu ne ku perte mooy kan saxaaba yi ne mooy ku amul alal ku amul dara ci ay matériel kooku dafa perte yonent bi ne leen déedéet fa qaala inna al muflis min ummati ñi perte dëgg-dëgg ci sama xeet wi kon ñooñu ay jullit lañ lan mooy wane ñoom ay jullit lañ yàlla mu ne yonent bi nee na min ummati ci sama xeet wi lañ bokk kon ci ay jullit lañ waaye dañoo dem yowmal xiyaam perte waaye ba ñuy dem yowmal xiyaam di perte mbokk yi déglu leen ñii lan lañu ñu ba perte ndax lii ku ko yóbbaale war ngaa perte allahu akbar al muflisu min ummati man yaati yowmal qiyaama bi wa siyaam wa zakat lan lañu ñu ay julli yu dul jeex koor goo xam ne kenn xamul nu mu toll zakat nag liñ ci joxe kenn xamul nu mu toll ñii def nañ lu baax wala defuñu lu baax ñii def nañ lu baax wala defuñu lu baax tontu bi mooy def nañ lu baax julli nañ ba nit ñi di julli woor nañ ba nit ña wooree joxe nañu azaka ba ñu amee alal waaye lan mooy seen problème lan moo tax ñu ñëw perte mu ne wayaati qad satama haza wa qasafa haza wa akala mala wa safaka dama haza dañoo yegg si rek ñooñu ak seeni i julli ak seen i koor ak seen azaka dañoo yegg si taxaw yowmal qiyaam cëpp rek ñu fekk nit ñi taxaw ñañ doon saaga taxaw di leen xaar ñañu doon sàcc seen alal taxaw di leen xaar ñañ doon lekk seen alal yi taxaw di leen xaar ñooñu tuuroon seen deret taxaw di leen xaar ñooñu dooroon taxaw leen di leen xaar croisé rabara di leen xaar bañ yegsee rek yàlla ne leen eh, xam ngeen ñii ñu ne waaw aji ne yow yaa lekkoon sama alal keneen ki ne ko yaa ma saaga woon keneen ki ne ko yaa tuuroon sama deret keneen ki ne ko yaa yàqoon sama der keneen ko yaa ma jëwoon yàlla ne leen aca fay leen ndax àllaaxira nit dafa yóbbaale alal déedéet ñu ne ñun yàlla indaale dara de yàlla mu ne kon nag seen julli ya ngeen defoon ak seen koor yeeg seen azaka moom la ñuy fay ñii gis ngeen ñu daal di jël julli yañ defoon ñoom ñëpp ak koor azaka ya jox ko gaa ya ñu tooñoon ñuy fay di fay par kenn kenn ba ñoom ñu jeexal takk te am na ñu des ñu ñu fayagut <laughs> yàlla ne fay leen ñii ñu ne ñun jeexal nañ seen tiyaaba jeex na ñu ne waaw yàlla ne malaaka yi jël leen bàkkaar yi ñii ngeen solu leen ko jël leen bàkkaar yi ñii ñu tooñoon ngeen sëf ko ñii ñu jël bàkkaar yi ñii sëf sëf leen ko xoola ak seen julli ak seen koor yi yépp a jeex moo tax yonent na ne ñii ñoo perte xoolal tiyaaba yi ñu am yépp ñu dem ci yàlla ñu fay ko ay nit kon nag koor ndeke dafa jara sàmm yal na yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal na yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko alhamdulillahi wahda wala na'budu ghayra muxlisiina lahu diin walaw kariha alkaafiruun ibadallah laa maana li zahiri siyaam in lam tataadda binnufus man saama fi nahaari ramadan wa lam yasum lisaana min alxiiba lil aaxirin wa hataka acraadahum wa lam tasum yada min alizaai alaaxirin wannayli minhum wa lam yasum qalbu min alahqaad walxil ala ixwanihi almuslimin fa inna siyaamuhu naaqis wa fihi tafritun kabir li xududillahi tabaraka wa taala ixwani fillah woorul de woorul kii may bëgg a wax woorul lu tax ndax kooram ci kaw kese la yem koor gi defarul bakkanam koor gi defarul jikko ji ndax làmmiñ bi woorul ma ngay jëw nit ña ma ngay xotti seeni yàpp ay loxoom woorul ma ngay jël alali jàmbur yi ak bokk ci di leen lor di leen tooñ xolam woorul lu tax ndax ma ngay xalaat luy lor jullit ñaak lay yàq dëkk bi ndax xolam mbona fa nekk ak soxor ak siis waa jooju kooram wérut ndax koor gi dëppoowul ak na yàlla tabaraka wa taala bëgg ku xool tey sunu biir càmbar ñu bu baax a baax xool yàlla nim ñu bëggee ak nim ñu bëggee jaamu yàlla yi mu ne ñu julli yi juróom day dindi bàkkaar diggante julli suba ak julli tisbaar bàkkaar yépp boo fi def tisbaar bu ñëwee dindi ko diggante tàkkusaan ak tisbaar bàkkaar boo fi def tàkkusaan bu ñëwee dindi ko noonu ngay toppee julli ba julli jeex waaye kañ su fekkente ne julli nga julli gañ la sant ramadan ba ramadan day dindi ay bakkaar waaye kañ soo wooree nañ la sant mbokk yi waaye hadis bi ñu ëpp ci ñun dañ koy jàng mooy assalawaatul xams wal jumaa ila al jumaa wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima baynahunna waaye am lu des ci hadis bi lu ñuy bàyyi mooy lan izajtunibatil kabair boo déggee koor day dindi bakkaar mooy day fekk nga bàyyi bakkaar yu ngande yi fekk yaa ngi woor di def bakkaar yooyu koor mënalu la dara fekk yaa ngi julli di xotti hormay lislaam dugg ci bakkaar yu ngande yi julli mënalu la dara da julli ba sonn julli gi doo ci jële dërëm dara du la jëriñ lu tax parce que mooy tandikoo bakkaar yi kii julli di jëriñ mooy ki nga xam ne day moytandiku tandiku Omar ibnul Xataab jàngale na naka lañuy ñuy ay bakkaar nee na kan ci yéen moo mus a dugg ci àll gaa yi yëkkati seen loxo mu ne àll bi am ay xaaxaam ak ay dëkk gaa yi ne waaw mu ne nan ngeen def ba xaaxaam yi takkul seen yére jamul seen dàll duggul seen tànk gaa yi ne ko dañ doon moytandiku laxasu ba dëgër di xool fa ñuy teg suñu tànk téye suñu yére yi ci kaw mu ne su ngeen moytandikoo noonu du ngeen am bakkaar ñu ñëpp bu moytandikoo noonu duñ am bakkaar fal yahzaril insaanu nafsa wal yujaddid tawba li rabbi wal yabtaid anil makarimil akh wal wal yabtaid anil munkaratil axlaq wal aqwaal wal amal mbokk julit yi kenn ku nekk si ñun na góorgóorlu ci boppam na jéem a beesalaat tuub digganteem ak boroomam waaye na sori jikko yu ñaaw yi ci weer wii moo xam yooyu dañ koy wax moo xam dañ koy jëf ñaar rek la jikko yi bon yi ñaar kese la ay wax la ak ay jëf soo ko moytandikuloo yàlla mën na laa dimbali suweer wi jeexee nga continuer ci lu baax musibe fulɓe caggal yettude allah e julde nelaɗo men mouhammad sallllahu alayhi wa alihi wa sallam hutba men hande wonno madar ramadan madrasatul korka ko école pewnowo jikku diine ari jikku doom ɓi adama yo feew yo moƴƴu diine ari ko fewnude neɗɗo ɗum tagi kala dewal allah allah yamiri en yen wat en tawat dewal allah ngal ɗon sen mbaɗi moƴƴere allah dañat hen ko fewnata jikkoji men dañat hen so tawi ko koorka allah haali alquran laallakum tattaqun beele oɗon kula allah hulde allah woni daña jikko pewɗo jikko ma feewa so tawi ko juulde ko noon so tawi ko hajju ko noon kala ko wawi wonde e dewe allah ɗe allah yamiri en en tawat sen golli en dañat hen kulol allah ɗum tagui nelaɗo nde wo addin o wi addin husnul hulq diine woni jikko feewa so tawi aɗa jogii diine kono jikkuma feewaani ƴeewto oɗon diine aɗa juula aɗa ñoha aɗa hoora aɗa ñoha aɗa juula aɗa waɗa geɗɗe ko ngannduɗa allah yamirani ƴewtu dewal ma allah beela aɗa waɗi no allah yamiriri ni keppuci ñun ku julli te sa julli googu terewula def lu bon contrôle waatal julli di xoolaat ko bu baax a baax càmbaraat ko ƴewtu a juuli ƴewtu korka ka mbela a hoori jabir ibnu abdallah o wi isa sumta so tawi a hoori falya sum sam'ak noppi ma yo koor gite ma yo koor ɗemgal ma yo hoor woppu penale woppu ko harmi woppu lorde woppu toñde koddiɗo ma o wi sa hoori e ñalawma ma hoorani fotani nandude neɗɗo so fini o hoori e ñalawma mo ganduɗa o fini hen o hoorani e ɗeɗon ñalawmaji ɗiɗi potani nandude deke ƴewtoɗen hoore men islam yamiri en kooren ƴeewen no koorirten mbele ko noon nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam hoorduno ƴeewen nelaɗo ko maake o wi man lam yada qawla zour wal amala bih fa laysa lillahi haaja fi an yada taamuhu wa sarabu nelaɗo wi kala mo ganduɗa ka koorɗo kono a woppani gueɗe ɗe ganduɗa ko gueɗe ɗe allah haaɗi gueɗe ɗen ɗe ganduɗa nelaɗo haaɗi aɗa woni hen jamma e ñalawma nelaɗo wi korka ma ka ala ko nafanma so wona ɗomka e heege a hoori ha kikiɗe malayka arayma tagga korka ka weddutoma wedditoma ɗum wima ala ko dañɗa hen sowna ɗomka e heege ɗum julɗo foof no ɗum renade ɗum julɗo foof no ɗum dogde ƴeewen koye men no feewi kooren no allah yamiriri njuulden no allah yamiri ngannden janngo alaa ko nafata en toon laakara e yeeso allah so ko yamiri en ko ngonen heen ko haɗi en goppen alaa janngo ko nafata neɗɗo so ummitiima o dariima yeeso allah so wona ko rewanno ɗo allah ko allah yamirimo omo woni hen ala baaba gonɗo toon nafowo ma ala ceerno ala mawɗo kala men nanɗo hande ko woni e nde ngoɗo wuuro ko e ɓe seeren ɓe ɓe mawɓe nodditoɓe sa yiwi koore ɓe mbiya ala hoto hoor an tottir kumtaari tan o xoolete e dëkk bi ñu bëri wooruñu soo leen ne lu tax wooru leen ñu ne eh, ñu ne man li ma jaaxal kii joxe ndogu day yor benn pot bënn ko taxaw naan waaw gaa yi joxe leen yow kay joxe woo nit ñee joxe yow kay joxe woo kii joxe kay dëgg-dëgg moo war a génn ci poosam togg jox nit ñi waaye yow nga taxaw ci mbedd mi waaye saa waay yi lu ngeen mën ci ndogu bi ñëw leen fi yow kay joxe wo ku nekk joxe juróomi dërëm ak fukki dërëm ak ñaar fukk nga dem togg ka ba pare ba pare ba pare loolu kan moo ko santaane ban yonent ana aaya bu leen woor joxe leen ndogu ci alxuraan aaya bi anamu dafa am ay nit yoo xam ne dañu ne ñii dañuy joxe ndogu ay nit la yu islam cité bokk na ci ku feebar ku dul wér koo xam ne kii xam nañ ne du wér feebar bi ñu ne kii mënul woor na joxe ndogu ponkal yii ba gis fii ndax ñoom dañoo feebar tontu leen ponkal yi ngeen gis seen koñ yi ñu teg ay fourneau kitchen dañoo feebar dara dalu leen lu dul yàlla nar leen a lakk ëllëg yowmal qiyaamati keneen kuñ ne doo woor da joxe ndogu mooy jigéen ju ëmb ñu xam ne kii bu wooree liir bi day loru ñu ne ko bul woor keneen kuñ ne bul woor kii nàmpal ñu xam ne bu wooree xale bi loru ndax weeni du am soow ñu ne ko bul woor keneen kuñ ne bul woor mooy kii tukki tukki dafa am ay coono yu métti jafe-jafe ñu ne ko bul woor ba ba nga yegg soo yeggee bu koor gi jeexee nga fay a charia dafa am ay nit yu mu wax ne ñii duñu woor waaye ponkal yi ne lëng nga xam ne sawaay bu ngoon jotee ñu diri mbana mburoog mbana kafe dara dalu leen bool yoo teg ñu ne ko tuy ñii kan moo leen wax ne bu leen woor joxe leen ndogu nañu xoolaat sunu bopp nañu xoolaat ñun ñooy ñan nañu xoolaat santaane yàlla càmbaraat diine bi li ñu yonent bi sant ñu xam ne wallaahi caaxaan yi ñuy def ëllëg ñun ñëpp danañ ko bàyyi dem ci yàlla barki démb tafsir bi jàng nañ aaya bi fii ci jàkka ji yàlla mu ne wa laqad ji'tumuuna furaada kama xalaqnaakum awwala marra wa taraktum ma xawwalnaakum waraa zuhurikum tey yéen a ngi nii ñoo ngeen ci yàlla cundung furaada kenn par kenn waaw lépp lu ma leen mayoon ci ba yi ngeen ko fa ñëw ci ay loxoy kese ba ngeen di judd ni ngeen juddoo woon noonu ngeen ñëwee fii tey ci man yàlla nee na li ma yéem xam nga mooy lan mooy ana ñi ngeen yaakaaroon ne yowmal qiyaam ñooy takk ay avocat taxaw sama kanam di wax ana ñooñu ana ñu Sénégal bokk na ci li ko yàq mooy nit ñi jàpp ne bu ma deewee am na kuy taxaw ci kanamu yàlla quoi di ma peledeel naan yàlla kii mooy diw Ah, waaw ana waa kër diw ñu ne ñoo ngi nii ñu ne dugal dugal demal toog gaa yaa nga nee waa ji daa accident deux chevaux moo ko mbëkk xam ngeen deux chevaux mu xëm ñu yóbbu ko hôpital mu xëm 24 heures mu xëm mu xim ko gis hôpital bi weex tal docteur yi ñëpp sol blouse yu weex mu defe ne yomal xiyaam la nekk mu ne ana waa kër diw docteur yi ne ko fii principal la yal nañu yàlla woon dëgg <laughs> su fekkee waa kër diw rek nga yaakaar jaamul yàlla alaxira amul waa kër diw alaxira benn kër rek la am benn kër benn kër rek la alaxira am mooy këru Muhammad mooy njëkk a dekki sol yére ñëw fëgg buntu àjjana ridwaan ne ko kokkan la mu ne ko Muhammad mu ne ko yow lañ ma waxoon balaa mooy ubbil kenn naa la ubbil mu ne ana sama waa xeet ana sama waa kër rek moo fa am kër mu ne ana sama waa kër allahu akbar kon ku dof doflu ba bañ a bokk ci bañ a dugg ci kër googu ku wax ne man bokkuma ci kër googu ba ëllëg wallaahi kër goo bokk di nga rëcc ëllëg bu dul kër muhammad allahumma arina alhaqa haqan warzuqna ittibaa wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaaba allahumma ya musabbitul qulub ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت wa ibadallah qumu ila salatikum yarhamukumullah Yeah.